asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw bu ma leen nuyoo ziar leen eh, bëggoon a eh, bay eh, aswaar rek ci déclaration bi nga xam ni Serigne Modou Lo Ngabou def na ko tey def ko ci ndigalul xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér ak ndigalul jawriñam di porte-parole am Serigne Bassirou moom ab sëriñ Abdul Xaadir yàlla na fi yàgg dëgër ak sëriñ Tuubaa gépp ak njabootu Cheikh gépp mu jëm ci soxna Aïda Diallo euh, muy décision boo xam ni yaakaar naa ni murid yëpp ànd nañ ci mbaa boog ñi ci ëpp ànd nañ ci ndax li waral tax ñu war caa ànd mooy euh, dafa am loo xam ni euh, ñun amul lu dul moom te moom la ñu rawee ñëpp te moom la ñu wutee ñëpp muy ndigal waxtu bu ndigal jógee ci kilifa jëm ci taalibe yi bu nu neexee ak bu nu naqaree lépp dañ ko war a jëfe bu fekkente ne taalibe gi ga ñuy woote mi ngi ci nun eh, te jëfe ndigal nag eh, day gën a eh, day day jariñ waaye du wàññi mukk ab taalibe donte lañ la digal neexu la waaye nga def ko ci te ndigal képp ak jëm Sëriñ Tuubaa tax nga def ko euh, aw naxaru la ca fekk mukk lu yàgg yàgg yàgg yàgg kon euh, bu amee koo xam ni eh, dafa doon kenn ci nun di koo xam ne mbooloo dañ koo topp mu amul tur ñëpp xam ko sëriñ bi woo ko cib néeg ñaari yoon woo ko ci saal woo ko ci pénc wax la mu bëgg te taxut mu nangu caa tënku ah wax dëgg loolu buñ ko ca baax dana indi eh, sos loo xam ni eh, ak yàq lay indi eh, ak ak ak jaxase xelu taalibe yi lay indi kon nag day jaadu wane ci sunu ñàkk ànd wane ci sunu sunu opposition euh, Aïda soxna Aïda jàlloo ñun de wax dëgg contre ñu jëmmam wala ñu soxale ko dara wala ñu jàppal ko dara loo xam ne jëmmi boppam moo tax mbooloo toppoon boroom këram ci jëmmi Serigne Touba tax ñu ko topp ndax fii ku ñu fiy topp Serigne Touba doo nga tax ñu di la topp ba fa boroom këram boobee jógee mbooloo ma wëlbatiku ne dañ koy topp muy précédent boo xam ni wax dëgg gisee gisee sëgu ko ci yoonu murit sa boroom kër jóge fi ay doomam nekk fi ñu ni yow mi soxnaam yow yaa ko war a donn te loolu ku ne xam na ni monsieur su ko gis ci benn doomi Serigne Touba wala sëti Serigne Touba waajuram jóge fi mu doon mbooloo ma moom euh, mënoon na ko defee noo xam ni la mu bëgg dana ko am te euh, kenn du ci fekk gis lu muy ñaawlu waaye nag ginnaaw noonu la ko yàlla xiire mu def ko te mënu ko baax ñu nit wax dëgg suñu warugar nag mooy jóg jóg xeex loola ndax duñu seetaan lenn loo xam ne dugg ci yoonu murit di ko xajamal wala mu di ko muy yàq image yoonu murit euh, te te te jóguñu ca ndax loolu complicité lay doon te lu yàq lay doon lu bare bare bare bare sëñ Muntaxa Moodu Muntaxa mi li muy baax baax ak li muy laabir laabir euh, gis ngeen euh, jamono yi nga xam ne ay nit fexe nañoo fexe ba mu recevoir ko euh, gis nga réaction yi nga xam ne moom la ca moom la ca taalibe yi amoon ndax xam nañ ni defin wa du coobare joo xam ne dafa jóge sëñ Muntaxa wala ay lijjanti la woon kon nag bu ñu seetaanee nag lañ ko tere woon sëriñ bi taree ko kon murid yëpp naqarilu ko bawu ko ñu jural bëtikuwaat intégré ko comme si de rien n'était te benn soppiku amul loolu incohérence ak waye di ak yabel la ñuy indil waaw parce que moom nag jigéen la moomul yoon wi da cee bokk waaw bu ci bëggee def loo xam ni ñi moom yoon wi seen maam sos ko euh, neexu leen ñu tere ko mu bañ koo ba ba noppi nag teewul ñoom ñu ñu ba ko ca loola loolu nag wax dëgg du fulla du fayda kon tere gi nga xam ne moom la ko sëriñ Modou Lo Ngabou tere da koo tere ci turu sëriñ Mountakha tere ko ci turu njabootu sëriñ Touba gi tere ko ci taalibe yëpp kon nga xam ni kon affaire murit la te it murit yëpp war a jóg nag mànkoo nag fas yéene tere boobu sax waaw ndax yoonu murit nag wax dëgg sëñ sëñ sëñ Mountakha njiit li moo ko moom waaw bu ci bëggee dara eh, sàkku sàkku ko càkkin wu ne ci sutura ak teraanga eh, ñu bañ sunu ñun ñun nag ñun responsabilité fexe ba loolee sax wala ko ko mënta saxal it mu mu seet feneen fu mu ko defee la mu bëgg a def ñun ñun la war te waxuma la sax ngaabu waaye madinatu salaam sax waru faa màggal ci tur yoon murit parce que yoonu murit moom képp koy tuddoo di ci yëngatu moom te nangoo tënku ci eh, ndigalul sëriñ Mouhamadou Mountakha di xalifa général des mourides Eh, nanguwoo tënku ci bëgg-bëggu mbooleem njabootu Serigne Touba ak taalibe yëpp bëgg ber yoonu bopp di def loo xam ne àndunu ci ba noppi nag di ko tuddoo yoonu murit loolu foo man di nekk eh, boo ko dee def dañ la dañ dañ caa war a jóg taxaw ca ngeen ko bañ ko def bu ko neexee mu leneen mën naa tuddoo way juram wala mu tuddoo leneen wala mu sos yoonu boppam yoonu kenn nekk ci wax dëgg yàlla ndax ginnaaw mbooloo topp nañ ko te eh, moom gëm nañ ko te ñun loolu wax dëgg suñu yoon nekku ci soxlewuñ ko ko waaye nag euh, tuddoog yoonu murit ba noppi daal te te nangoo tënk ci ndigal tey doxale doxaliin woo xam ne day day xajamal yoonu murit ñun loolu dong mënoon xari waaye leneen naxari woonu te it di am nañ euh, ñu ngi ci ay disposition bonne disposition laabiré ko ndax bu ñu sañoon wax dëgg mu dellu siwaat ci yoon yi euh, mel ni nga xam ne aw ci yoon yi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg moroomi taalibeem yi bëgg ko bu ko defee jamono ñooy bu ñu sañoon wax dëgg loolu mooy mooy am ndax moom muy beru wala muy beddu ko wala muy génn euh, bugguma ko man boog bugguma ko ndax bu ko defee du ma jëriñ dara donte bu nekkee ci yoon wet du ma du ma wàññi dara bu ci nekkuti du ma wàññi dara waaye nag euh, sama mbokkum taalibi la kon maanaam loo xam ne moo baax ci moom wax dëgg moom lañ ko war a yéene comme ni ñu yéene suñu bopp lu baax waaw am nañ ñun ay disposition pour laabire ko bu ko nangoo dellusiwaat ci yoon wa nam ci war a delloo bu ko nanguwut it nag wax dëgg mu nekk ci lam ne te seet eh, weneen yoon mu sosal boppam wala neneen nu mu ko doxalee ministre de l'intérieur nag ak eh, mbooleem ñi nga xam ne ñoo yor kaaraangeeg Sénégal eh, ñoom mbir mi interpellé na leen waaw parce que y a des risques bu fekkente ne liñ ko digal dëgër na bopp ne da koy def lépp lu fa am nag te ñoom jëluñu mesures yi nga xam ne préventive xamal ko ni lii sëñ bi wax moom la war a def waaye mu am dëgëru boppam di ko def ñu seetaan ko ba ko ca moo xam fu mu ko mën a defee loolu na leen wóor ni kon yéen seen responsabilité la engagé waaw li ko sëriñ bi tere daal tere na ko ko dégg na ko te euh, sëriñ bi amuti euh, policier amuti gendarme waaye am na taalibe yoo xam ne ñoo gën a dëggal euh, généraux yi gën a dëggal colonel yi waaw te li sëriñ bi wax moom ku ko nar a jalgati danañ jóg jàmmarloonte ak yow. waaw li may ci dolli rek di ko tëjee mooy euh, dégg naa am na euh, sëñ xaw ma nan ngaabu chef de village ba def déclaration euh, di jàppale soxna Aïda Diallo waaye waxi koo xam ni moom moo dañ laa defaral sa kër di la joxi tabaski ak nag yi màggal ak di la joxub xaalis loolu moom yu mel ni boo ci yëkkatee kàddu defoo ngir jëmi sëñ bi. dafa ngir défendre l'islam sa intérêt bopp ngay défendre ñun nag euh, bu nu neexoon loolee ñu am ko waaye nag àdduna nag li ci biiram danoo jërulut ñuy jàppale kenn koo xam ni ma ngay jëf-jëf ji yàq lu toll ne tarfatal ay ni ci yoonu murit àdduna jëralunu ko waaw kon kooku déclaration boobu moom wax dëgg day day day firndeel moom itam ak ñàkk a tënkoom ci ndigal euh, rek ak euh, xëy na yittewoo gu mu yittewoo ndimbal Eh, waaye du loo xam ni moom sax lu jara a eh, lu jar a tenir en compte la waaw kon loolu rek laa amoon lu ma ci dolli eh, di ballu ak bu baax di leen ziar di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh